mbokk waa Bantamba TV ñu leen nuyu leen gërëm di leen sant teel nag comme chaque samedi seen émission Bantamba Jumbukaay amati beneen jeune lutteur espoir de la lutte avec frappe kooku nag moom mooy Alboury nekk écurie Sagnambour. seen ñi fa nekk yëpp kenn amu fa salaire. seen bi amul salaire. amul salaire ah kon ñoom dañuy liggéey te yàlla tax. ça waaw. ah, ah <laughs> loolu moom yëngu na yëngu ma ko woon de. Bira naa la woo naa la wéew jàppale la ay ñoom CNG bi naa naa seen président naa naa si jàppale naa ko jàppale mais tamit ñoom dañoo war am salaire. dafa am sa benn naataangoo man bu génnoon si tëb am kàddu yu ma xool ni ku sa yaay juraat. ay ku dee loolu du ay wax. kañ nga fa seen takk soxna. ah waaw bëgg naa ko moom ndax bi may tuumaal ak bi ma waxee yëpp xale yi di ma jot jotee ci ci ci bi ku ne di wax. lu yëpp mu amoon soxna ndax ndey ko ma bu dee bu ngaa dégg dëgg damaa raxas denc lu ne def naa ko soxla naa suma bopp nag ndax toll naa fi góor yàlla yi daan toll maa ngi nii di ñaq nii rek te nag maa ngi vierge ba tey sooy guma de ñu ngi am ñu bëri ñu ngi naan ma léegi yàqu nga ak yi wallaahi laazim ba tey xamuma dama yàgg di yàpp xamuma xamuma ba tey lu muy sox ñoom ñoom jibil daal ne ma neex na